سقت برب الهرم سزلت وجوابي مع المصطفى والله ولي مولد زولي وسقت برب asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuho bokki jullit yi bokki taalibe yi ginnaaw buñ leen nuyoo ziar leen jiital ci ziar bi Cheikh Sidil Muxtaar ñu ngi ñaan suñu borom may ko wér te yàggal ko fi lool mook mboolem njaboot ak borom Tuubaa yépp bokk yi ñoo ngi fii ci Daaru Xuddoos ci mbaaram Liwaawul Hamdi tey nag bis bi nga xamante ne bi waa kuréel mooy bu naafihu bi lëkkale kuréelu xasiyaar yi nekk biir Touba ak li ko wër ñoo fi amal seen huitième édition journée Euh, bis bi nag euh, nin ko defee saa su nekk defe ko ci ndigalal Cheikh Sidil Muxtaar ak kilifa yi nekk ci biir dëkk bi dañ koy xëyee njàngam alxuraan feggoog njàngam xasida yi waaye ànd koog bokki jub yi ak bokki taal bi yëpp euh, journée xasida nag ku ne xam na ne yaatu na lool ci biir Touba waaye tamit yaatu na lool ci biir réew mi waaye nag kuréel mooy bu naafiwu di ci dox doxin woo xamante ne bi doxin wu yaatu la seen site istikhama point org nag fépp foo xamante ne si yu mel nii am na fa ma nga fay teew ngir indi leen lépp loo xamante ne bàyyikoo na fa kon mbokk yi baaxoo ànd ak ñun seen site internet istikhama point org ñu ngi leen di indil programme bi nga xamante ne bii moo bàyyikoo fii ci journée xasaayit euh, daarul xuddoos bi nga xamante ne bii waa kuréel mooy bu naafi kuréel yi lëkkale kuréel yi xasida yi nekk biir Touba ñoo koy amoon fii ci daaru xuddoos kon dañuy ànd ak yéen ci waxtaan yi nga xamante ne bii am na fi waaye tamit danañ ànd ak yéen ci kuréel yi njàng moo xamante ne bi njàng mucc ayib la moo xam rajas la moo xam njàngam aw la moo xam njàngam kuréel la danañ ànd ak yéen ci biir liggéey bi ci xasida yi naka noonu tamit jëwriñ yi nga xamante ne ñoom ñoo seq liggéey bi danañ leen tàllal suñ micro ñu ànd ak yéen wax ñu tey jii lan lañ yëg ci bis bi kon mbokk yi baaxoo ànd ak istikhama point org ñu ngi ànd ak sëriñ baaxe ja di leen indil lépp loo xamante ni bàyyi koo na fi ci journée xasida Touba édition 2016. aoudu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmani rahim allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim wa ayyi salmin sayatin munas sabqa ala iblis maydan sujud تكبرا على الحديث الوجوه سخى على إبليس من سجود تكبرا

لقد ذو القدرة والإرادة ولم والحياة ما أراد أسوا البشر والكلام أعزب لي مخرجكم لبإباء الظالمان إليه حي وسميع وبصير ساق عذابه وما له نسير

subhaana rabbika a izzati ammaa yasifuuna wa salaamun alal mursaliin walhamdulillaahi rabbil aalamiin bokki jullit yi bokki taalibe yi yéen a ngi ànd ak ñun ba tey ci reportage bi soxal bisu xasida Touba di juróom ñetteelu yoon di huitième édition waa kuréel gi nga xamante ne bi ñoo lëkkale kuréel xasaat yi nekk Touba te Cheikhul Khadim Cheikh Sidil Muxtaar tudd leen mooy bu naafiwu ku ne xam na ne njàng mi ngeen xamante ne bi yéen a ngi koy teelu boobu ba léegi ak événement bi dañuy jàkkaar dañuy jox suñu micro nag kenn ki nga xamante ni bi moo jiite mbooloo mi di Serigne Cheikh Dieng Serigne Cheikh Dieng euh, yaa ngi ànd ak waa Istikhama point org ci bis bu tedd bi nga xamante ni moom lañ jagle xasida Cheikhu Xadim yi te kuréel gi nga jiite di mooy bu naa fii di ko taxawal tey jii lan nga yëg ak tey lan ngay indi ci ab soññee ci bis bu tedd bi aoudu billah bismillah in wàlli yàlla wa ma tawfiq ya illa billah salaamaaleykum mbokk yi nuy seeraan ak fu ñu mën a nekk ci àdduna ñu ngi leen di nuyu di leen siyaara waaye di am mbégte bu baax ci jotaay bii nga xam ne tey moom lañ amal fii di bisu xasaayit bu Touba te daayira mooy bu naafex bi lëkkalee mboolem kuréel xasaayit yi ne ci biir Touba organiser liggéey bii ñu ngi leen di nuyu di leen siyaara bu baax sëñ Mor ni ko waxee jàpp naa ne tey jii képp ku fi teew xam ne lañu waxoon ca ba ñuy woote liggéey bii firnde jël lii firndeel na ko ndax dañoo waxoon ne sëriñ bi moom amul tànk ginnaaw waaye tànk kanam rek la am loolee moo sabab tey fenn fu ne ci dëkk bi mbooloo jóge ne fa teew ci liggéey bi waaye fenn fu ne ci régions yi ne ci biir senegal mbooloo jóge na fa ñëw teew ci liggéey bii waaye day mel ne lu ko jiitu woon ci daara yi ne ci biir dëkk bi wàccee nañu ay kaamil yu bari bu ñu xëyee tey jiit dellu siwaat ñëw fii def fi ay kaamil waaye wàccee fi ay limi xasiida yu baree baree bari loolu lépp nag nga xam ne ñi ngi koy def ci bis bu tedd bii ñi ngi koy def addee Serigne Touba waaye di ci ñaanal mboolem ñi nga xam ne ñoo jiitu ñëpp sun borom ah, yërëm leen fii fii nuy waxee noo ngi séentu Cheikh Mamadou Basir moom sëñ Abdou Khadir nga xam ne mooy porte-parole yoon wi waaye noo ngi séentu sëñ Mamour Mbacke moom Serigne Falilou jàpp nañ ne ci kanam tuuti moom it dana ak si biir jotaay bi ci kanam ñu ngi fi séntu yeneen i kilifa yu bare bare bare yoo xam ne liggéey bi ñor na leen ñoraan goo xam ne dañoo xam ne duñ ci yebal kenn waaye faw ñoo ko teewe seen bopp waaye kuréel yi nga xam ne ñoo def liggéey bi kenn nëppaluwut mën naa ne ba ñu xëyee ba léegi kenn ku ci nekk yaa nga ca fa nga xam ne lañ la féetaloon ci wàllu organisation bi ñu def ci liggéey boo xam ne bu am solo la li nga xam ne it mooy wàllu bernde yi wax dëgg yàlla tuwaar kàlla ren jii li fi ñëw ak liñ ci def ci bis bi mosuñu ko def ci benn bis bis ci weesu yëpp loolu lépp nag ñu koy sant Serigne Touba ndax ni ma ko daan waxee mbooloo mi mbooloo la moo xamante ne bii liggéeyal sëriñ bi rek mooy leen ñor loola it moo tax ba ñu delloo ci suñ Sidi Muxtaar yëgal ko liggéey bii xamal ko ne ko dañu ko fas yéenee def nañ ko daan defee mu ñaanal ñu ci nañu na yaatu yan na yaatu joojee nag mel na ne liggéey bii tey jii yaatu ko koy ni ci bu baax a baax ndax fépp foo xam ne jàngkat ma nga fa moo xam day rajas moo xam day durus moo xam day yëkkati ñoom ñëpp boo leen dajoo fii ñu xam ne daje bii tey du dajëb kuréel yi rek waaye daje la boo xam ne dajëb xasiida la képp ko yëngu ci xasiida yaa ci biir liggéey boobu yéen ñi nga xamante ne bii yéen tas xibaar yi nga xam ne fenn fu ne ci àdduna mboolem site yi ñëpp teew nañu yéen ñii di ci ay jàmbaar yoo xam ne événement bo am ci xasiida yéen a nga fa ñu ngi leen di sant bu baax a baax baax di ñaan daal lépp loo xam ne dañ ciy def yàlla na ci daje ak ngërëmul sëriñ bi wasalaamaaleykum ilayka ya xayral bariyati salaam خديمك الذي كفيت الملا إليك يا خير البرية السلام خديمك الذي كفيت الملا صلى عليك أبدا مع السلام بالبلاء

دارنا سيا jërëjëf euh, bokk yi yéen a ngi ànd ak ñun ci reportage bi nga xamante ni bi moo soxal lépp lu aju ci bisu xasida bi nga xamante ne bi waa kuréel mooy bu naafiw euh, kuréel gi lëkkale kuréel xasidaat gi nekk biir Touba di amal seen huitième édition journée xasida ñu taxaw ak kenn ci nag jëwrin yi di sëriñ jiili Diop euh, ñu bëgg koo jox rek suñ micro rek mu indil ñu lenn ci taxawaayu bis bi ak li nga xamante ne bi en tant que ci bis moom la yëg ci bis bu tedd bii nga xamante ne dan koo jagleel xasiday Cheikhul Khadim yi kon sëñ jili bisimilah. ok jërëjëf Serigne Mouride ñu ngi am mbégte lool ci seen teewaay bis bi itam ni nga ko waxee bis la bu màgg bu rëy lool ci ñun. mu mel ni itam li ci liñ ci yëg defe naa mooy li ci taalib yëpp yëg ndax bu amee bis bu ñuy màggal di ci màggal xasida Sëriñ Tuubaa yi te xasida yi ñu xam ne yàlla màggal na ko yénti ma sa màggal képp ku nar a texe di ko màggal kon ñun bu ñu yàlla boolee ñu koy màggal loolu mbégte mi ñu ci am foo ko takk wees na ko loolu itam liñ ci yéegewaat mooy mbooloom Sëriñ Tuubaa lépp lam ñaanoon ne yow yàlla na dajale loolu am na ndax ñi ay kuréel yu teqali ko yu wuute ay jëmm yoo xam ne mën duñu xamante waaye lépp xasida yi xamale leen kon loolu mbégte mi ci am mooy santaat lool xam ne itam sunu borom mi nga xam doon liggéeyal fay na pay goo xam ne ñëpp mën jariñu àdduna ak alaaxira mbégte moom liggéey bi ni waxe muy liggéey bu nos boo xam ne ginnaaw suñu Cheikh wax dëgg yàlla liggéey bi li yàlla waxoon ne lu ngeen di jëfandikoo ngeen koy bind loola moo tax ñun lépp lu fiy jaar dañ koy bind waxtaan ak ci ci goo xam ne agréer du masam nga xam ne ñu def ko ba jekk tey bu loo xam daal tey la daje discuter ci naan nañ ko ba réer di ci ndax lépp dañ ko waxtaan avant tey kon mi bis bu nosu boo xam ne itam taxawal dañ ciy am rafet njortu ci ne mën naa xeet adduna bépp te noonu lañu ko kilifa yu baax yépp di waxee lu mel nii moom ñoom dañ ciy am yaakaar ci ne jéel la réew waaye àdduna bépp mën na ci xeetli ko ndax yendoo jàng alxuraan karim yendoo jàng xasida Sëriñ Tuubaa yi lépp lu waaye xam ci lu wax nga yendoo ko ànd ak di berndeel taalibe Sëriñ seen xol yi ubbi ko loola lu ko gën a rëy lu ko gën a kawe amut moo tax ñun bés bi mbégte miñ ci am mënuñ koo leeral xanaa dañ koy bégg rek tey ñaan yàgg ko def di xam lay nañ ko waxee bii suñ juróom ñetteelu at ñu koy def waaye wax dëgg at mu dikkit a gisaat xéewali Sëriñ Tuubaa yi ni ñuy dikkale ndax mën jub li nga xam ne mooy yéwénal bis bi ci wàllu alal du fi nekk moom waaye danañu wóor dana yéwén loolu doyloo guñ doyloo sëriñ moo ñu ko may sëñ murit kon loolu rek li amoon ci kàddu yi ñu ci wax ba amul beneen laaj ñu xam naa ba jëwriñ yi accident la xam naa laaj bi ci lu gàtt sax mooy ku ne xam na ne bis yu mel nii li mu làmboo ci ay njariñ bari na waaye tamit dana tënk gone yi ba waroon a dem feneen foo xamante ne bii euh, sëñ bi da koy tere lu mel ni majali saxawa yi euh, dana leen tënk ba yooyu sëriñ bi bañ duñ ca teew mu mel ni tamit bis bi njariñ loolu ku ko xool da nga ko gis ci xale yi fi mu ne jëmatuñ fenn foo xamante ne am pola ñu ngi jublu xasida yi waaw dëgg la xasida yi moom day ngànnaay loo xam ne sëriñ yi daf cee waxoon ne yow yàlla ku koy yër na nga ko yar loo xam ne ku koy yër mu lay yar nag sikki sàkk newul ci ne bis boo xëyee di gën a baax bis boo xëyee di gën a baax jooju nag moo indi tey bis bi ni bu dajee ay junni junni junni man fee daje te ñëpp bàyyi yeneen yitte ñëw dajaloo fi ngir alxuraan lañ fi jàng xasida lañ fi jàng ñoom ñëpp nag li ñuy yëg su boobaa leen lay doon la ñuy kon ñun yëg nañ defar gi nga xam ne xasida yi mu ngi koy defar ndaw ñi kon bi semaine yi dafa war bari alhamdulilah bari na ndax bu ñu jógee fii tey ñi ngi jëm Thiès jógee ñi ngi jëm Louga bu fi jógee ñi ngi jëm Ndar ba région yi Sénégal yi jeex kon nag bu fekkee région yi Sénégal yi ci nekk am na bis bu ñu fay taxawal jëmmi dëkk bi moom dafa jëlile bi waaye yeneen bis a ngi fi yoo xam ne bis yu mel nii la ndax mën naa ne guddi àjjuma gu am na mbooloo muy daje def lu moom dafa rëy ndax dañ ne waa ko bokk waaye bis kilifa yaa ngi dajale ndaw ñi di leen jàngaloo xasida yi ñu fanaane ko nga xam ne la ñu waroon defee yeneen yooyu yëpp bàyyi ne ko jëm ci lii te loolu yi dañoo gis ne rek mooy li Sëriñ Tuubaa liggéey waxtu wu nekk day gën di fes day gën di feeñ moom dafa njëkk ci xol yi xol yi moo tax xol bu mën a doon la a jiit lu mu day mujj rek jeexaat tàkk ci Serigne Touba kon xasida loolu la jural sëñ Morit <laughs> xanaa nga tëj rek comme euh, laaj bu mujj bi mel na ni tamit ànd ngeen ko kilifa yëpp euh, yi nga xamante ne bi euh, mooy kilifay dëkk bi ak kilifa yi nga xam ne ñoo ñoo buñ ko waxee Cheikh Sidil Muxtaar jiitu ci ci ndigalam ngeen koy defee ak kilifa yi nga xamante ni yëpp dañuy xettali bokki dong yi ci xasida yi Sëñ Tuubaa waaw loolu moom boo ko tuddee danañu danañu neex lool ndax xam nga mbir boo koy def li sëriñ bi waxoon laa tafangaloo shay an bi xayril isni fa isnu sartun fii qabuli seen ñun dañoo dal mooy ñun fexe nañ ba li ñuy jëf ci ndigal la tege nga xam ñu ngi ko tàmbali jamono Cheikh Mouhamadou Amine Baara ñu wóor ñu ne mooy jiite yoonu murid yépp kon sañu taxawal dara te wuñ ba ci moom yàlla dogal ci moom la njëkk amee ndigal ndigal loola yeesal nañ ko ci moom ñaari yoon mu door a wuy ji boromam ñu ñaan suñu borom dal di koo gërëm te doo ko bis bi waaye dañuy yeesluwaat ko nekkoon nag ñun ñi ñooy mbooloo mi taxawal xasida ci kuréel Touba yi nekk yeneen Touba li bii nag dañ koy def ngir di ko màggal ba biñ fi mujjee lam ñu wax daan ko mooy na ngeen ko fonk te yaatal ko soññu ñi ci ñaanal ñu ci ni ki noonu tam Cheikh Mouhamadou Mountakha nga xam ne ku ko ne ràññee ko ci uh, yoonu murit waaye ci liggéey Serigne Touba ak pas-pas bu ñu ci moom it dañ fay dem siyaare ko yël ko bisi noonu lañ koy def ku mel ne sëriñ Xamsatu Mbàkke sëriñ Sohaybu nga xam ne mu wóor nañu ne sëriñ bi da koo liggéeyloo ci xasida mu koy liggéey ci ndaw ñi di ci moom la ñu ko mu ci taxaw taxawaay bu am solo nag ndax yëg na ne bëgg xasida moom moom dafa bëgg xasida yi bëgg wér ndax waxtu ne mi ngi woo ay école ñu koy jàngal nekki noonu nag njaboot sëñ Tuubaa yëpp ku lim da ngay juum waaye nañ yëg ne daal buñ bés bi jubsee duñ noppalu benn yoon guddeeg bëccëg ñi ngi wut ay leetar dem ci kilifa yi njaboot sëñ Tuubaa den ko yëgal fuñ ci demee nag lañ ñuy wax kàddu genn lay doon kenn ko nañuy xamal ne lu baax la ñoo ko waroon def kon bu ngeen ci nekkee ñun ñun ngeen ci nekkal duñ leen ci seetaan dañ kon bis bi moom mbégte mi ci am ak cawarte gi li ñu ko gën ah, leen sant bu baax ndax yéen it ci barke xasida yi suñu yokk seen liggéey defal leen ko it nag muy ngërëmu Serigne Touba ndax li def jumtuwaay la bi ci lépp lañ ko war a liggéeyale bi daa moom lépp moom man la ka ni dunya wax raa samadu ginnaaw moom lépp nag lu ci waaye yor te am ci pas-pas bu ko yaa ngi koy liggéeyal kon ñun ñëpp yàlla na ci biir ngërëmam rek asalaamaaleykum wa rahmatullah yaa faatilan faddaloo xalaabu yaa man bihim faaqanil imlaabu yaa faatilan faddaloo به الصلاة العفائق جعل الدعاء والفوز والافتاق بك كما بك احتال خطاق جاء الرضا والفوز والافتاق بك كما بك اعطلت حطاق بك احتوينا بك اختوينا معلول اشتاق صلى عليك أكرم الخلاق يا الله سل وتسلم سرمدا على النبي العربي أحمد وآله وشابه واشبه لخير نعيم كل ذر اليسر يلا أسل وتسلم في أباد على الذي إليك قد من عباد واتقني كل شلول به وعلما يهدي وفقيه واتقني كل شلول به سبحان الله والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين jëf mbokk yi ginnaaw bu ngeen dégloo Serigne Cheikh mi nga xamante ni mooy jëwriñ ji waaye sëriñ Jili mi nga xamante bi ñoo ngi koy ñaanal ci xam-xam bi suñu borom yokk ko euh, sëriñ Bara Gueye nag moo jiite wàllu communication bi dañ koy jox suñu micro mu wax ñu liggéey bi fi mu toll kon sëriñ Bara bisimilah. Euh, aouzu billahi min asheytan rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu ala rasulillahi muhammad ñu sant borom yi tabaaraka wa taala di julwaat ci yonent bi yeesaa sunu cofeel ci Cheikhul Khadim radiyallahu anhu di leen nuyu yéen ñi ñëpp di leen siyaara di siyaara képp koo xam ne mi ngi seetaan ci jumtuwaay yi nga xam ne bokk nañ seen taxawaay muy yaatal yaatal liggéeyu sëriñ bi muy Cheikhul Khadim kon ñu ngi leen ñaanal su moom def leen tawféex ba yëtti ji tam lépp su ma def leen ñu la kawe seen ñot gannaaw loolu fànn gi nga xam ne moom la ñuy jëwriñ ñi dénk ci liggéey ba am sol bi mbooloo mi taxawal euh, muy bisub boo xam ni kuréel mu waay bu naafiya bi lëkkale kuréel xëse Tuubaa moo koy amal ñu fànn woo bi def naa ni ci ay waajtaay def nañ ci waajtaay yi nga xam ne di jëwriñ yi jëwriñ yi santoon li nga xam ne def nañ suñu kam lay kàttan moo xam ay émission yu ñu war a amal la am na yu ñu ci def moo xam ay euh, yu ñu war a def émission yu war a ci rajo yi wala yu def ci site internet yi am na ci yoo xam ne yëpp jàll na bañ egsi nii ci bis bi mboolem timit rajo yi nga xam ne ñoo nekk ci gox bi wala tele yi nga xam ne ñoo fi nekk ak site internet yëpp ñu yot leen ay lettre invitation ngir invité leen ci bis bi ngir dafa nekk jotaay boo xam bu ñëpp la seen liggéey day liggéey boo xam ni mépp mbooloo wala képp nit koo xam daa am lenn lu muy def te bëgg loolu mu sore bëgg ñëpp jot ci rawatina liggéey Sëriñ Tuubaa loolu day nekk loo xam ni faaw mu jaar ko ci yéen ndaxte waxuma la jëmmi liggéey bi waaye jëmmi lis jëmmi lislaam sax fu mu àgg mën nañ ne maanaam euh, presse mooy la fa àggale ndax boo bokk ci jumtuwaay yi jëfandikoo jamono yoon saa sam yoon saa sam bëggee diin yaatu jëfandikoo na ci jumtuwaay yi amoon jamono booba ci loo xam ni loolu dañ koy boole boolaat biir presse te boobu ay leetar yu daan bind di yóbbu ci gox yi fasantikoo ngir lislaam àgg fa kon loolu liggéey la boo xam ni kon presse moo diine ñoo ànd kon su ñëwee ci liggéey boo xam liggéey Sëriñ Tuubaa la ñu ànd ko ak ñun loolu day nekk loolu lu ñu sawar lu ñu sawar loola mbokki jëlaa loolu dénk ñu ko teg suñ teg suñ loxo liggéey buñ ci yaatoo moo xam fii ci réew mi la wala num yaatu ci bitim ndax gis ngeen ay site internet yu fasandikoo yu fi tey yoo xam ne kenn ku mi ngi def kemt laayam ci def ko direct nga xam ne loo fasandikoo ci ay réew loo fasandikoo ci ay dëkk ñu ngi koy am ñu bi ñu toll di am direct liggéey bi loolu def na ab liggéey bu réel boo xam ni ñoom presse bi ñoo ñu ngi ci jàppale nekkul ne sunu njàmbaar la ñoo ko amee waaye ñoom seen njàmbaar ak yëg nañ ko liggéey bi ba leen ci woowee tamit ñoom sawar ñu fekk ñu ci liggéey bi ñëw ànd ci ñun lool kon loolu tawfeex bu mag ñu ngi leen ci ñaan rek su borom def leen ci tawféex ba ñu li ñu ñu dénk su borom dimbali ñi ba liñ ci bëgg lépp su defal ñu ci loo xam ni lu kawee suñ ñot lay doon kon daal liggéey bi mm, loolu la mën naa la fu mu toll rek presque mooy fa mooy mooy fa àggale nga xam ne lii mooy juróom ñetteelu année boo xam ne ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy amele fii def naa ne sëriñ murit mii sax euh, moom du bare bëri umb ko ci ndax kenn la ci kenn la ci liggéey bi te saa su lu yu nii suñ ci suñ ci suñ ciy nekk day nekk nit koo xam ni ngir mën a am aw yoon wu njaar ngir loolu yomb ñu loolu sax dañ ciy dégg dañ ciy déggante ak moom mu ñuy teg ci yoon woom nga xam ne daanaka mën naa la fu liy àgg rek ci ab rafetaay ci loo xam ni mbirum presse la moo bokk na ñàkk faagal ndax ay xalaatam saa su ne yoon xam ne ñu koy jotal yu rafet rafet bëgg rek ngir liggéey bi yaatu loolu tamit ñu ngi koy seedeel ñaan su boobu defal ko tawfeex loolu daal moo amoon ci loo xam ne façon waru ko wax salaamaaleykum wa rahmatullaahi wa barakaatu liman li ah li Amen